ma dafa am loo xam ne daf ko bàyyi ci man des fois nit ñi dañ may wax ne moom mais da nga créer vocabulaire wala yow wolof bi ngay làkk nu mu demee wala li ngay bind foo ko jëlee man leen yàlla moo ko def ci man donc je pense que euh, tëdduma aussi di nelaw parce que yàlla li mu def ci man aussi daf ma permettre ma koy travailler tout le temps et puis je me que y nouvelle génération boo xam ne bëgg na musique bu ñuy def ñun ñuy déglu donc il faut que il faut ñu travailler il faut qu'on amène chaque fois ay album yoo xam ne day am day am haute facture ay album yoo xamante ne nii buñ ko buñ toogee d'ici dix ans wala vingt ans boo dégloo texte yi tu pourras te diir que kat ah bon musique bi musique bu bu jëriñoon suñu dëkk la wala boo wala boog nga ne marqué na histoire bi récemment j'étais en train de discuter avec un ami euh, étranger la quoi mu ne ma dañ ko traduire morceau bu ma def si suñu album nit mu ne ma mais est-ce que tu sais que morceau boobu c'est c'est un des meilleurs morceaux de l'album ma ne ko non bul wax loolu parce que yeneen morceaux yi sax c'est c'est des morceaux qui sont intéressants mais c'est vrai que euh, bind bi ma ko bindee dama ko bind ak yéene ak xol comme li may wax rek musique boo koy def wala ngay bind benn texte il faut nga def ci sa xol boo ci defee sa xol je pense que dina mën a dina laal ñu bari daal waaw waaw dafa laal géné dafa laaj générosité donc ñun man lépp lu may def rek je le fais avec générosité et puis euh, euh pour man euh, c'est une chance d'être un artiste boo xam ne dañ lay déglu dès l'instant que ñu ngi lay déglu sénégalais yi ñu ngi lay déglu rek c'est une chance même bu dee 5 pour cent ñu lay déglu donc lépp looy def da war a def da war a def sa maximum pour que nit ñi mën a kontaan ci li ngay def. ci bi politique jaaduwul dafa bëri vis baadoo la yaa ngi gis yoon wu ni sa ndëm guy tere gis gëla war dala war nasaraan bay wekki di daaj ana njit buy mën a dekku jekku mën lu ñuy laaj saafara jàngoro dëkk bi mbooloo mi wóolu ko palam poli sikk politique bu la jig jëli ko tegu ci tali bi jalgati mbi bu alkaati jàng jadd jàggati civisme askan jogati feebar bi lool ni corruption xoola yi maladie tugal ngi TV xale yaa ngi ci jàng jikko àll bi xamel 11 millions di gas wëlbatiku di suul garab bi garab bi soppi jikko nekkin weesul ndekkete ba léegi dañoo foo dañu biddanti ëllëg bi ñu bëgg a blackout tey lañ koy lijjanti ndongo di from daara ji family suul ker du ko tere feeñ kon euh, ndongo bu euh, daara ji famille moom lii la wax lii mooy avion ci li nga xamante ne moom moo di suñu sujet tey bi euh, dañuy continuer rek di wéyal li nga xamante ne moo di discussion bi gis ngeen fi nga xamante ne foofu la malal expliqué léegi muy wàllu texte yi yi ñuy faral di wax naan gis nañ ci ay similitude ci biir tamit aussi bien ci côté bi ci côté taasu bi malal nag léegi xam naa ne li ñuy def pour kayit yi rek dañuy bàyyi li nga xamante ne moom moo di yow nee nga tey doo def doo jouer doo def kii <laughs> mais freestyle parce que platine yaa ngi fi. Euh, yow ak euh, Keyti rek ngeen am dara lu ngeen def mu dul ko grand bi mooy suñu grand <laughs> <laughs> kon nag euh, Keyti ñu bëggoon rek nga def benn freestyle nga laaj yow ak parce que tamit ci kanam tuuti dañuy indi tama bi ndax tama ak sabar moom mooy ànd ak bi wante rab bi li muy àndal mooy platini ak DJ Kaali mi ngi nale ci côté bi du ñu def lu dul may ko loxo xanaa xanaa xanaa ñu bàyyi fu malaat non non a dañuy gagné de non grand bi mooy sama invité aywa aywa comme ni ngeen koy waxee ci la langage u mbalax comme que yéen da ngeen xaw a mbalaxe tuuti kayti laa ko bàyyale bàyyale naa kayti mbir mi baal ma bàyyale la ko rek ayca rek ayca rek ayca ayca bisimilah go on go on jaajëf ayca yes aha uh-huh. uh-huh. ah jërëjëf jaraw lakk ñoo ngi delloo njukkal dund ak dee am ak ñàkk yow la ñuy sukkal yar ñu yor ñu yee ñu tax ñu di la sargal dee ñu teel ñu feeñu doon sunu parbal bopp loxook nopp ba ci tànk bi ñuy jiital yoon bi ñuy topp doon bët bi ñuy niital ñoo ngi siyaar nëmba ñaar leer ci diggu lëndëm tàkk-tàkk gën di màgg ji ne tëgg ndëndëm doole mbaam fitu gaynde mboot du ñu xuuxal oyof tuuti pata ngande cuune du ñu suuxal teggi nañu coono life dara du ñu diisal jomb nañu firinaay firimi la ñu tisal Keyti waaw doo def benn freestyle ay ca boog aywa ñi ñafe laay ñi yaakaar laay wax ñi jóge ci suuf jëm ci kaw di tabax képp ku sa ngëm fay su ma bindee yaa tax kàddu yu ma jiw a ngi sax si xol ne gàncax si gil xol asamaan gis bi déew yi tàkk junni raay ràyyi raay ku ne sa bos a ngi fa yàlla gëmul nelawul te xam ne moo ñu sàkk xam na li ci xol yi su jotee tàbbali fa bés yi ngay woote wàllu tàllal sa ay loxo lonk ci sa njàqare di xaar xéewal wadd guddi sàngoo weetaay nugal sa ay xalaat ba ngelawu fajar jóg sa xel bi ne kadd yeewoo li nga fanaanoo yendoo li nga yeewoo taqandeere jéggi bés yi waaye ci biir nekkoo mel ni mënoo muus ba mucc ci ay trouble mel ni sa life yëpp da nga ko nar a struggle delloo sil sa xel eh. ñii ay artistes lañu parce que on n'a rien préparé waxuñu woon ne dañuy def ñu jox leen kii rek ñu dem rappeurs yi dañoo aay nag. ñu may leen loxo bu baax a baax. Ah, foofu la ñu gën a foofu la rappeurs yi gën a aayee taasukat. Ah, yaa ko wax de. taasukat yi ci yeneen yi ñu ci yëfu xaw caay caay kàccoor <laughs> tuuti lañ gën a aaya ah. léegi nag malal euh, du ñu def lu dul euh, xam naa kayit yi day dellu si waat dañu def nag lu dul daal di recevoir ki nga xamante ne nee naa leen euh, bu ñu waxee artiste artiste complet la fi nga xam ne fa la bokk la ndax i tamit Kaolack la bokk moom dafay tëgg dafay woy sax léegi dafay taasu Papa njaay Coppet su ma ko waxee xam naa ne xol yëpp dina war mën a sedd ana waa salle bi Papa Ndiaye Coppet waa xoolal li voilà léegi il faut ñu nuyoo waa Papa Ndiaye look bi ban la bi mooy yes sir you know what I'm talking about man <laughs> Keyti jaajëf euh, bu ñu waxee euh, wàllu rap ak taasu yow ni nga dugg see rek wane na ko yes sir moo tax ma bëgg gën a jàkkaarloog yéen rek ñu tas bagage yi. ah yes yow platine ngay laajte wala tama bi. platine tama yi lépp na mel ni sonkorong ga ca bàññul téeméer yamb ci benn butéel na tas tasaaroo bay sax caxugul